bëggewaat nañ leen ziaraat leen wàccaat leen joxaat leen seen wàccuwaay bu wér di bëggewaat kullum kuy safoo wasaare rek la bu baax a baax ziar la jox sa wàccuwaay wér su nga gisee fii nag xam nga dinu malika yi la dama doon yëg sànq si kaw din yi moo tax sama tànk yi daa chargé quoi xalil entraîné wul day tapale démb demoon naa ci waas contact fa tey ñëw naa fi yëg si din yi ñëw seet si yéen bu diis yéen bu diis yéen bu diis bëggee naa salaamaaleykum maa leen di ziar di leen ñëpp di gaa yi ma àndal di woo gaa yi ma leen nuyu di leen ziar di leen sant yéen nii waa wasaare maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu sa caméraman bu ñaawul bi. Ibrahima Khalilulaay. Cum Khalil. yaa ngi booy booy booy yaa ngi koy may bës di booy. waaw Khalil nante la ah, la. non kii mën na ko mais waa mais yéen bu dis. waaw kii bi ñëpp bàyyi nga jël. kii ñëpp bàyyi comme. ah ki nga xam ne su noonu la la ñuy wax Guèye kan la kan la sonal waa Goya. Ah, am am na fa ñaari victoire de. waaw. da dañ ne dañ ne mu yóotu cinq tonnes ñu ne déet mu teg si bébé Elton. waaw ah, loolu wërsëgam la. sa nee yaa si des nee na sixième da kaa teg ba roi ñu koy xaar incha allah wala bi gis nga loolu wërsëgam la ñu mbëreel du ma du ma du ma si débat du ma fi def dara ndax xam naa ñu mbëreel ay champion lañ. kon donc yàlla moo def mu doon am ndam seen kaw am na ndam seen kaw mais nag ñu doon mbëreel ak. combat bi moom du doon benn moom. nee na combat bu mu mës a am ci cinq combat yi passé. waaw combat bi gën a yomb. yàlla baax na bala kat dinañ xam ndax combat bu yomb loolu du combat bu yomb. <laughs> yaa ngi yaa ngi ree de nga am. yow xam nga ni tib yi ma am ak tib yi Washington sax am duñ benn. du tax fu mu taxawee Dugar taxaw Elton Junior. kii boobu mbër yu tawee ñetti ñi waxu gaaw a génne de. foofu nga gis fu ñu fekk fa ay mbay guy gi géej nga dem tasanteeg moom. ay xale rek nga doon xale daw entraînement bu régulier. kooku kooku contact gis état bi. mais jàppale ma ci bu dee yaa ko doon caméra waas bu dee yaa doon caméra bu ñu ko bi xam nga ne ñaari entraînement yi sama boss a gën a intense téeméeri junni yoon. bee baax na de moom léppam ci comédie la ko teg man comédie wu de. waas comédie wul de déedéet dama la bëgg xamal ñaar man comédie ma man damay làmb. te waas hmm. sax xam nga loo si ci àdduna rek chaque chose dafa am temps à son temps muy doog a taxawaatee di doog a nekk si liggéey bi di doog a xam ne carrément làmb dama ci am place moom foofu la jëlee sama avance dafa mel dafa am foo jóge fu metti fu ma metti nag barki Serigne Touba Mbacke ma jóge fa mu metti ma loolu ndax ki ma daan waruma daan tax er, ah, mbër waru er boobu moo tax nga mer jël ko asin tour pour rectifier sa bopp loolu moo ma def mbër

yi dañuy jugé quoi. yéen xam nga yow yaa ngi fi gis yaa ngi ma gis yaa ngi gis Washintor yow xam nga ni bu si yàlla nërree rek yàlla toog seetaan bi <laughs> waaw yow. kon laamu yi yàlla. 47 paquetu mande fraîche du ma ci benn. 47. paquetu mande du ma ci benn. non yéen. Washintor nee na lamb ji li nga ci am lépp mooy. Hmm. wax ju bari ak fecc. nee bu arbitre sifflé moom foo nekk mu fekk la. da lay duma nga bëgg mu neex da lay duma mu naqari da duma. loolu moom lañ ko xamee bu la da lay daal. moom mooy dem état di tëkku nit ñeeg di comédie ak di def yëfu dof yooyu loolu kenn mosuma ko xamee benn yoon la ko yàlla jay mu ñëw di ma tëkku di def daan def nit ñi ñëw tese mu dëgër këcc et eh. ma duma ko duma yu metti ci la bàyyee dem état di duma di dëkkoon ak yooyu noonu loolu man la ko def te man la man maay dernière personne bu mu ko mujjee def kon dafa mel ni duma yooyu non nga bëgg a tifee bu muy métti laa ko duma nag da nga bëgg a tifee ma ko jaxase xam nga ku seddaay bi nga jàpp ko ponkal jaxase ko dóor ci kanam gi ba weex tàll bu si géeree xool fu mu jaar de. kon kon da ngaa bëgg a tefewaat loolu la kat. incha allahu rabbi waas li ma seq ak moom mooy jàpp ko duma ko duma yu metti wala mu dóor ko ba mu daanu sequma moom jàpp li wax ni loo gëm la wala wax la nii nii nii xale taal caméra bi ngay wax ni gëm laa lay wax billaahi wallaahi wa taala fas yéene wu ma bëri ak moom Washintor su ma bëree ak moom mu neexee góorandooy na dem CNG jëli sama reliquat la fa des kon fas yéene woo bëri Washintor ma bëri ak moom xalaatuma ko maa woo sama papa borom TDR ETDR ETDR borom maa ngi woo di ko sant bu baax a baax a baax a baax di ko wax aw ma fayam. yàlla mi am fayam yàlla na ko yàlla fay kooku sama papa sama leb la. di nuyu Tafa Kañ di wax nag combat bi du combat Kañ Tafa Kañ affaire yi teg naa leb sa loxo combat bi sa combat la am ni Moustapha yow laa jox combat bi kebe day xaar. di nuyu Baye Lat di nuyu Bamba di nuyu ñëpp di nuyu sama gaay yi ma àndal ku ci mel ni Baye Lat Fallou Galas Dugar Serigne Thiam ca nitu démb yàlla nitu waaw démb yëpp laa andi tey. sëñ ah, dafa yàgg quoi kon combat démbul. ancien ni ñu Baye Fall bi dégal maa ngi koy ñaanal combat mook Carlo Goudin yàlla defal ko ndam lu gaaw yàlla ko dóor mu daanu sax. loo ñaanal ak ñaanal ko sa ndam lu ñaanal képp ku nekk école Balla Gaye di préparé lam ma ñaanal yàlla suñu borom defal la ndam. te nga ñaanal sa bopp. waaw yow te nga ñaanal sa bopp waa de. séddale daal tàmm naa ci ku njëkk yi xanaa su ma ñaalee kenn bala maa ñaal kenn ñaal sama bopp nee na siaté bi da nga faa ñëw di jaay laa bëgg wane sama bopp ba adduna yëpp xam ne yéen sa bopp barke alxuraan wane ma sama bopp dese woon naa ko fonk comme ni ma ko fonkee nii billahi wallahi dama ko doon foowee xaw moom bere bere ñu ko war a jox ba ma R5 daanee kon bi R bi sa signal bi loolu loolu lim lim wàññi ci man dafa bari bilaay dafa ma def lu baree bare maa ngi ko ciy sant bu baax xam oto boobu. la ko yàlla defal rek mais yow xam naa ni moom. nga oto boobu est ku rey jinne daal. wéy toog sa àll bilaay. nga ne ko ku rey jinne. bilaay wéy toog sa àll. ngel kii seexuma moom ay wax di ñàngal xamal ma seexuma moom. Eh, at bi sifle ma duma ko duma yu metti barki Serigne Bamba. dama lay duma duma yu metti sa kanam gu ñaaw googu su la jàppee naa la duma duma yu metti wax rek nga mën sa lamin bu rëy boobu mbelti mbelti rek nga mën nee mu a amul cinq victoire quatre yàlla nag moom mbër bu ñeme yàlla la du dëgg du fa amee cinq victoire ah, ñaar seen tur mais ñeneen ñaari man xawma leen sax man wàllu tur ba bay tam ñaari mbër laa xam ñu daan muy gën a muy gën a xam seen tur waaye xam ni ku dugg sama kër door fa samay doom balaa ngaa génn ma defal moom daa dugg géej waaye too njoos leen daw ñëwaat dugg seen biir kë waaw ah. dóor la daw bi yoon nag buñ xaw ma day njoos xaw ma mais bu dugalee loxoom fi la loxoom ni dese bu dem loxo bu kuuj lay yóbbaale la loxo bu lan loxo bu kuuj waa ngeen nekk ñaari adversaire de taille waaw ah. combat bi simple nañ ci ngeen samp jaaga yéen ñaar waaw dañuy xeex dañuy bëre est-ce que def lépp man moom wax dëgg fa yàlla soo bëggee dëgg pour dire vrai hmm. man ñëwuma pour bëre quoi dama koy confirmer benn mbir hmm. Washintor Touré sax mën a mën a ko ne la keroog ba ma dëkkee esat dem ñibbi hmm. keroog dañoo nekkoon face mu bari wax mënu ma ko leeral dafa maa dëkk di jaay lamine bu rëy ma duma ko dumay metti mu dem ñibbi dem ba seen koñ toog paranteeru jàmbur la toog nan leen ngeen bu diis du ma bëre ak moom paranteeru jàmbur barki alxuraan ndax nan mu dëgër këcc sa loxo yi daa dëgër. Eh. du ma bëreeg moom kooku nante la te mbaru mbaru ngaaxa ngay wut. ah moom mbaru ngaaxa palanteer borom palanteer bi moo gën dàq ko palanteeram ne ko yow booy jugeel fi yow tapet nga mosuma xam ne ni nga mel. barki alxuraani karim tapet international la. billaay wax moo baaxoon wax moo baaxoon sax mais maay maay maay ci ba ci ñim dendal sax ay jege ñaayoolem ñi ngi may woon nan ay tapet la su bis baa dóoruma koog du gis ku yooyu mais su bis baa. waa du la nax bis ba. nee na arbitre dina bëgg nee na Alioune Sarr dina bëgg mu woo pompier kii bi yaa. <laughs> sa boobu sapeur. waaw oto <laughs> na corbillard ñëw. ngeen nekk xale. waaw waas di xale. waaw promoteur bi. les jeunes amateurs. waaw dañuy ay xale ay xale comme ay yéen. Mhm. tëgg leen. est que bu jour ba. seen li ñuy séntu si yéen. Mhm. di ngeen remplir contrat bi à 100 pour cent. waaw loolu moom dama siy sant Goro Ndoye quoi mention spéciale à Goro Ndoye. defe naa ay booy yu ndaw. ay xale bu ñu amee initiative bu jug xam nga suqali làmb kon ñun ñun ñu delloo leen ko ñun ñu ay xale comme ñoom góorandoo nag ñu xool ñun ba ñu ko. mu jël avance am jox ma jël waas avance am sama avance jox ko ñun buñ nangu mu yóbbul ñu dara. parce que tamit teraanga teraanga rek a koy fay quoi. ay près de huit mille licenciés wala neuf mille licenciés bu fi bàyyee ñëpp taamu la c' est parce que y' a quelque chose quoi. comprendre nga léegi nag li ñu góorandoo xoolee ba taamuñu ko ba choisir ñu. nañ fexe ba bis baa bañ dara bañ dara am daraay mbetteel wala moom promoteur mu bañ cee am daraay mbetteel su bis baa man yéen bu diis sama part waa Géejawaay yëpp ñu ngi may xaar. te incha allah ñaata talon lañ a xaar si yéen yu bari man yéen bu diis. yu moom leer na liñ ma fay moom xam naa dinaa jënd lépp noonu ci ay bolo. man waas moom waas moom na pare mu fës xanaa waa Gueule Tapée dañ ci bokk ak waa Grand Dakar ak waaw waaw HLM ak. moom Dakar yi boo koy toog. <laughs> tur mari mag yi bu ñu na tur bi rouge bi la fas yéene feesal. ah waaw ah kon loolu taw feex la ko defee dina def li mu gënal sax. Eh. léegi garaaw bu feesalee tur bi rouge. waaw na feesal zone ñu neexal làmb ji. ngeen taaral bis bi. ma duma ko duma yu métti daal. nga xam seen ah, xam naa ko loolu gën a xam. waaw ah. ñaan yàlla mu yóbbu ñu seeg jàmm. bis ba yàlla may ci. bu xeexee incha allah ma duma ko duma yu métti. bu bëree man bëreewu ma. Eh. damay xeex billaay waas dugg nga si rap ci Sambala ma yaakaar bërëmu. di nga mel ni yoonu Kafountine. ma maa ngi sant nag waa Touba. waaw ñu baal la sant waa Tëngéej tàgguwaale. gi ma judd Tëngéej sama papa fa la juddoo fa lépp sama bàjjen yi maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen woo Pape Saliou Mbengue maa ngi lay woo frère borom Sébi Xutaan di sama Samba Ndour mi nga xam ne drapeau bi moom lañ ko tuddee muy nit ku baax nit ko nga xam ni ku mën a sonn ci ñun la maa ngi woo Samba Ndour bu baax a baax ci làmb ji di borom daaru di ko wax làmb ji làmbam la. Mbacke Balla yàlla la fi yàlla bàyyi nga dund lu bare bare bare bare bare di woo borom daaru encore plus sama mara maa ngi koy woo mu jàpp ci làmb ji bu baax a baax di ko wax làmb ji làmbam la. di woo képp ku may jàppale di ñaanal école de lutte Balla Gaye képp ku fa am combat yàlla may la ndam maa ngi ñaanal Sa Thiès bi mu jëm moom rëg-rëg yàlla na ko ci yàlla may ndam lu oyof. ndam lu gaaw. maa ngi koy ñaanal mu am ndam. di sant waa kër famille Baye Alé nag. maa ngi woo ñëpp di woo Mansour suma xarit Aline Badara di woo wal Baya di woo Masata Ibrahima ñoom ñëpp maa leen woo Baye Alé mention spéciale Baale xam nga Baale Ndiaye. Baale Ndiaye waaw ah, ah. mu mag. mu mag ma ku ko xamul dégg nga ko. moom ngay woo mooy Baye Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye. waaye daf maa mu ñëw mu ma combat bi sama combat la. kon kay fi ñu nii jot ñaata sek nga laal. non pas que ma laal xanaa. damay <laughs> may wax ñu may cat a cat baaxul mais maa ngi koy sant di ko ñaanal wér di ko ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan. maa ngi koy ñaanal bu baax di sant samay mag. iso maa ngi koy sant. Euh, Mouhamadou Mouhamed maa ngi koy sant bu baax a baax a baax. di sant suñu waa kër yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant képp ku may jàppale. sant waa Daaru Rahman. sant waa Géejawaay di sant waa xale Cité bi ma juddoo waaw maa ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp ñu ñëw jàpp ci làmb ji monsieur le président mm, Bambakan Bambakan maa ngi koy woo bu baax sama grand sama xarit Baye Fall maa jël nuyoo bi di teg sa loxo di wax Bamba mu jàpp si combat bi ñun ay raxam lañ ay frère am lañ di képp ku si jàpp rek maa ngi lay woo. loo yóbbante waas comme doo ko yóbboon sa kàddu gu mujj si waas. waaw wax dëgg amul dara bu baax rek. ndax eh. su ma dëgmalee ku jëmale ko ci gi. da ngay bañ bañ ñu mën a portée ay bañam xam nga léegi mbëri portée daa ñuy tax baaxul. <laughs> dañ ciy tax bu baaxul ma dóor la nga wan ko. nga yem samay loxo. jàppale ma rek solo ma portée naa bu baax bu dëgër këj. Mhm. su ma la dóoree bu sa gémmiñ teppee ko it sa bañ mën faa des. Eh. waa kon maa ngi lay bëggaat bu baax a baax. ngi lay dellu bëggee bu baax. lam fay sama mag Lamine te Abdou Ndour Abdou Ndour Lamine Papa Ndiaye Ama Baldé dama bëgg li nga génneel ma ko. Abdou Ndour sama mag Lamine sama mag Papa Ndiaye am a di leen wax ne làmb ji seen làmb la. di santaat Kandji production moom laa am aw ma kenn man benn autorité jàppale ma yéen ñaa ñëpp koy sant. non non man kooku li ma mel foofu moom melu ko fa. yow xam nga Kandji ni ma mel ak moom. Ah, tamit ni mel ak Kandji tamit. non ma laaj Kandji. mu ah. mel ak moom Kandji lu ma am lu ma mel moom la. Badou barki Serigne Touba Mbacke. combat bi su ma ko bëree. Hmm. ak leneen ak leneen lu ma la mun wax grâce à moom la ak Kandji la maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal. dëgg waaw fi ñuy gis gars yi ca kaw ñu seen ko fa ca kaw yàlla na ko yàlla defaral jàmm di wax waas daal na préparé su bis baa ma tegal ko tegal yu gaaw ñu def ñu. Khalil <laughs> di la béggewaat bu baax a baax di la ziar di joxaat sa wàccuwaay bu wér di bëggee kenn si man nag. sama entraîneur Fall. Hmm. course salle musculation bi dafa naroon ñëw mais xam nga rek te day tardé. mënul di naajee ñëw quoi ndax day dem salle ba. ak sama maa ngi koy woo bu baax a baax a baax di woo waa station Amosis Baye Sikim suma gaañ gànn maa ngay woo bu baax a baax di woo Fisa Balla di woo di woo Baye Lat milieu <laughs> laamu ñu sa laam la nag. di bëggewaat ñëpp di ziaraat ñëpp di joxaat ñëpp seen wàccuwaay di bëggee kenn si man nag muy suma nit di suma xarit di suma lépp Omaro Omaro. maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax yow sa wàccuwaay sa xarit yi yow suma nit nga suma lépp nga yal na yàlla defal jàmm yow Omaro Omaro sama na yàlla def sa jàmm yow Omar naa la yow téer bi nga xamee na bàyyi woo ma benn yoon ma rafle yal na yàlla defal jàmm yow say appareil yow say lépp ah, ñu ngi la baax a war a téegal <laughs> waasin dama bëgg su ma ko téegalee ba pare nga laalal ma demi saison bu baax ma seetaani jóge wala lamb saa mun na loolu de ah, moom mun na loolu moom Omar bëggee ziar wàcc waay wu de Khalil. Khalil kontaan nañ ci yow. le grand caméraman. mer maîtrisé. man yow laay toppale il